di yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabone boo noppee ci kolos yonent bi wax na ni lu baax lépp ci am xel lañ koy amee kon nit ku amutum xel du mën a am diine ci tomb bu mujj boobu rek muy ci ni ku amutum xel du mën a am diine lu baax lépp ci am xel lañ koy amee danañu taxaw tuuti jàngat ko ndax dañoo jaakaarloo ak wax ji dañoo dund wax ji dañoo gis wax ji wet gu ne gis nanu fa mu wér ne ku amatum xel du mën a amu yiw te aw yiw mooy diine kon ba ci diine nit ku am diine xelam mu rafet lay takki waaye ñàkk diine yëpp ci nit ki tekkiwut lu dul xel mu ñaaw mu tàmbulee ci nag yéefar ba dem ba ci jullit bii moy li ko sunu borom digal loolu lépp bu ñu seetee xel mu tilim rek moo koy andi ndax ku amutum xel néew na mu jariñu ci dara Euh, ndax nit bu xoolee ak lottam ndax nit dafa lottu ba àgg ci lottu na ci dégg jëmmi boppam nit boppam ci jëmmi boppam moo ko jëkk a ëmb bu xoolee loolu xool lottug boppam ci dégg boppam xool lottug boppam ci man boppam am xelam dana ko puus ci mu xool yi nitam ci seenug lottu ci seen mbiri bopp xool seenug lottu ci mbiri ndax nit bu fekkee am xelam rafet na dana gis ni ku ne rek nit ñépp rek ñoo tolloog moom ci tolluwaayu lottu ci seen mbiri bopp loolu bu ko nit gisee dana ko yóbbu ci mu xalaat doole jum wéeru joo xam ne bu ca wéroo du daan bu xoolee kanamam doole jum war a wéeru it du jës lu dul yàlla yàlla mi nga xam ne mooy kenn mooy kii aju not moo bind mbindeef yi di leen wërsëgal di leen rey di leen dekkal fekk amuñu woon mu amal leen jël ci feppi suuf def ko mu doon doomu aadama buy dox am xalaat nonu mu ko defé day dem ba nit ki ñak dutu amati nit ki bo amé am xélam di sétantal yoy yépp lim koy joo moy wéru ci yalla mi nga xamné moy borom katan euh dara mënta am ta andu ca dara mënta nek ta andu ca dara mënta sax ta lu moo jublu mu sax bu boba am xélam dana ko pousse ci mu wéru ci mom wakir lu ci yalla joyal ay mbiram ci yalla motax tax yooyu ay jàngale la yo xam ne moko moo wa alallaahi fatawakkalu in kuntum muminin am na ci muminu muminu firawna nit koo xam ne ci jamonoy firawna dafa gëm Muusa te di ko nëbbu moo waxoon ni wa ufawidu amriya ila llahi inna allaha basirun bil ibad loolu nit bu xamee noonu boromam jàppe noonu boromam xamee noonu kàttanu boroomam xamee noonu lottug boppam xamee ko lottug doomu aadama yi dana ko joo ci mu wéeru ci yàlla dëgg-dëgg wéeru lu muy sàkku mu sàkku ko ci yàlla lu mu ragal mu sàkku ci yàlla mu jañal ko ko dana ko yóbbu ci dootu sàkkooti ci mbindeef lenn dootu geestu mbindeef ci dara walla boog saa xool nit daf koy xoole bëtub yërmande akuk ñewant xam lottug doomu aadama akuk doya dem bu boobaa taxawaay bi muy bëgg a taxaw diggante moom nit ñëpp mooy taxawaayu dimbali leen waaye du doon taxawaayu sàkku ci mbindeef dara ba muy yaakaar ci mbindeef dara ba muy xaymeem ci mbindeef dara loolu taw tawxiid la boo xam ni war nañu ko jàngi ci dundub Sëriñ Tuubaa ci jëmmi boppam ndax nit doonte gis nga ci kaw ne woomal na mbaa nga gis ci li ngay gis yow ci sa gis-gis bu gàtt ne am na xam mbaa nga jis ci sa gis-gis bu gàtt ni am na ak ñaw boo xoolee ba ca biir danga gis nit ku lottu la nit ku ñàkk la nit ku umpale la da wax xam ni doomu aadama ku lottu la doomu aadama ku ñàkk la doomu aadama ku umpale la te yooyu yëpp ay melokaan la yoo xam ni suñu borom daf ko saxal ci alxuraan saxalal ko doomu aadama bu dee xam-xam sunu borom liñ ci wax mooy li ma leen andil ci xam-xam tuuti la kon li nu yàlla andil ci xam-xam jaare ko ci yonente yi tuuti la te yonente yi lañ ca xamle tuuti la ci nit ñi xam la ca ña ko jamonoon teeg moom xamoon tuuti lañ ci jàllale li ci agsi ci noonu tuuti la li ci tuuti jooju agsi ci noonu tuuti lañ ci dégg tuuti jooju ñu ci dégg tuuti lañ ci jafe loolu boo ko xoolee tàmbalee ko ca kaw ba ci suuf da nga ci xame lottug doomu aadama xame ci manque teg doomu aadama xame ci tëleg doomu aadama ba tax na bu fekkee borom xel mu ñaw nga daf lay joo ci nga gëstu dëgg-dëgg yàlla seet seetnoo wéeroo ci moom seet noo jafandoo ci moom loolu mooy tawxiid bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woote woon la ko yàlla yónnee woon mu woo ko woote ko tawxiid boobu moom la saxaaba yi déggoon ci woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ñoom ñoo xam ne ku ci mel ne Abubakar waxuma la muy sàkku ci mbindeef dara waaye àggoon na ci bu waree ci kaw Euh, moom yàlla dogal yar ba wadd sax du wax nit ni ko jot li ma sama yar bi day wàcc jëlal ko boppam ngir moytoo laaj nit ñi dara bëgg nit ñëpp li muy seq ak ñoom mooy yàlla lay seq ak ñoom waaye ba ci jot li ma yar bi sax du ko seq ak doomu loolu ab tawxiid la boo xam ni yonente bi moom la jàngale woon saxaaba yi dégg ko daan ko dund ba am na ci ñu ci àggoon foofu tawxiid boobu moom la suufi yu mag yépp déggoon lu ma waraloon lépp lu ñu am ci àdduna doyloo ko doyloo yàlla bu wóor doo leen seen ñuy yëngatu ci dara mbaa ñuy xëccu ci dara lu dul lu neex yàlla doo leen seen ñuy yëngatu ci dara lu dul jéem a xam la neexul yàlla ñu di ko jéem a moytu seen kem kàttan doyloo la ne ca loxol seen borom waxuma la sax ñuy seet la nekk ci loxo yi nit ñi waaye li ci seen loxo sax euh, duñ ci am siqa duñ ko doyloo ngir danañ xam ni nit ki amul dara mun dara ki nga xam nag dem na ba li ci loxoom sax doyu ko xoolut lam yor la fa yàlla képp lay xool ngir xam lu ñàkk gu euh, ñàkk gu loolay ñàkk a jeex ak xam gu xam gum xam ni lépp lu mu yor day jeex euh, loolu moo waral ñu doyloo la nekk ci loxo yàlla ba fàtte di ci seen loxo fàttewaale la ci loxo yi nit ñi loolu yóbbu nit ñi ci ñu am ci ñoom cofeel ba àttan lépp lu ñu amati man a ñëw sotti leen ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ko mas a laaj ne ko nu may def ba yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mu ni ko boo dëddoo adduna yàlla bëgg la waaye nit ñi boo dëddoo la ñu yor ñu bëgg la kon nit ñi seenu cofeel mi ngi takku ci nga baye len la yor sunu boromit ak tiofelam mi ko teunk ci nga dëddu àdduna te jublu ko mum ci jëmi boppam kon ñooñu bañu ñu digënté ak seen borom ci jafandu ci bu wóor wóor waral yalla sopp len def ak tiofel ci xoli nit ñi nit ñepp mëna jël lañ am ñew sottili len ko ci lulul seenu ci lulul bëgg ci lulul seenu xel kon loolu Euh, mooy déggin wi soofu yuy déggoon am na ci ko ku def ay bay di wax ni laa taxda'anna li maxluqin ala tamain fa inna dalika naqsun minka fi diini bul toroxlul mukk mbindeef ngir xemeem goo xemeem ci moom dara ndax loolu dafay mànkil diine daa cee teg ni wastaxni bi diini an dunyal muluuki kama staxna al muluuku bi dunyaahum an diini nanga doylo diine bayel fi buri adna yi sen aduna na buri adna yi aduna bo soxla wuñ dara ci sa diine ji nanga fexa ba yow tam doylo sa diine ji bo sen aduna bobé bu leen ci soxla dara dal je tagni inna anta tarjuhu wa taamuluhu min albariyati miskinu mi miskin mu lépp loy yaakar ci mbindeef yi ak di ko mebe yi nima ko man misale mi ngi melni miskin bo xamni domi miskin la baayam la yaakaar baayam baayam it te ko tawxid boobu moom mooy bi a Cheikhul Xadim déggoon jëfandikoo ko dëppi mu wàcce ci kaw suuf kenn mosu koo nattalil mbaa mësuñoo dégg ci moom mbaa ñu xam ci moom mukk ni soxlaal na mbindeef dara lu dul xam-xam bi muy xamee boroom li muy sàkku ci xam-xam diggante ak boroomam lañ xam ci lu mas a ci nit waaye leneen mosuñ koo xam ci moom ci lu muy ittewoo gis moo ittewoo mbindeef ci lu dul mbindeef mu koy tegtal yàlla ba ci boori àdduna yi gis-gis bi mu amoon ci ñoom mooy lu luñ nuru nuru ñu am kàttan rek ñu néew doole lañu kon xam gum xam ni ñu néew doole lañ seen mbiri bopp sax tëna leen moo taxoon xalaatul di fab ay mbiram di leen ko wéer moom justice boobu la amoon ci buuri àddina yi moo waral jamono bi fi maamorant sali bàyyi ko ñu jox ko ñu xalaatal ko ni ko danga waroon a gise ak buur bi ngir fi sa baay féete woon ci wàllu doon ab àttekatam nga féete fa buñ demee ba gis loo xam ne dañ koo war a woy nga woyal ko ko mu xam la ni rus naa yëkkati sama xalima gi jëme ko ci kenn ku dul yàlla ba ab yonentam ca la waxe xasida gu yéeme googu muy xaaloo liyar kan li abwaabi salaatini mu ni ñu ngi may wax ni ma jàngal jëm ci bunti buur yi taaxus jawa isa toox nii kullama xiini boo ko defee dee da nga am ay may yoo xam ne dana doy doy ci waxtu wu ne waaye mu ni fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi man leen man day sama borom doy na ma te doyloo naa ko walastu raadiya gayra al ilmi wa diini gërëm loowu ma dara lu dul xam-xam ak diine dal ca teg ni anni ufawidu ahwaali liman ajazu an haali anfusihim ajisal masaakin nan laay fabe samay mbir di ko joyal ci ñoo xam ne lott nañu ci seen mbir bopp kem lottuk miskin yi aw kayfa yabasu nii ni xutaami ala jiwaari man duuruhum rawdu wala bëgg pañatum adduna nan la may yóbboo ci may dëkk ak ñoo xam ni e, seeni kër dëru seytaane yi la làkk la ngir seytaane yi ñu di ko bàggante noonu mu daan doxee loolu it la jàngaloon mbooleem ay taalibam jikko jooju it la leen daan yare ndax euh, sëriñ Bachiru mu ngi nettali ci Minanul Baax Xadim ni sëriñ Dabu Asan wax na ko ni ko diir ba ma jébbaloo ci sëriñ Tuubaa ak tey mosuma dégg mu digal ma luy nuru njariñul boppam lu may digal rek ak jaamu yàlla lay doon ca laa xamee ni kon yoonu murit ak jaamu yàlla lay tekki ndax nee na ba ma jébbaloo ci moom ak tey musuma deg mu digal ma luy nuru ni jarignal bopam mo ci nak lu ma digal rek mako ko ak jaamu yalla lay do ma xamé ci ni kon yoonu murid moy ak jaamu yalla rek serigne touba dinañ jangé ci mom ak deggu da dafay lu am solo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni da dafay yobbu nit ci ak mbax te mbaax mooy yóbbu nit aljanna wax na nit du dañ mukk di dëggu di nattale ak dëgg ba danañu ko mujj bind fa yàlla mu doon fa siddiq jàppe ko siddiq te lépp lu mu waxati ñu dugal ko ca euh, ñu dugal ko ca karne dëgg ba bu doonoon njuumte sax njuumte dañ koy jàppe dugal ko ca karne dëgg ba waaye daan moytandikuloo fen mu ni fen na ngeen koy moytu ndax fen dafa yóbbu nit ci ak kàccoore te kàccoore dafa yóbbu nit sawara nit du dañ di natale ay fan ba sunu borom bind ko mu don kazzab nga xamni lu mu waxati bu waxe deug sax dañuy japp ne dafa juum wax deug waaye dafa jubloon fen serigne touba ñu di ci jange ak deug mu don misalum deug ci kaw suuf xam ngeen ni deug ci la asamaan suuf taxaw dëggu ci wax dëggal ay waxam mom serigne touba mo sabab ñu génnee ko yóbbu ko Gabon mu am fa juróom-ñaari at dëggugum dëggu lépp luy nuru jafe-jafe bu ko gaar ci dundu addunaam la la ak dëggugum dëggu moo ko sabab ndax bañoon na lu dul noona wax lu dul noona bañoon na ko ba àgg ci li ñuy tuddee at taqiya ci diine nga xam ne diine nangu na buñ la naree bundu xataal mbaa ñu nar a jël sa bakkan ci wax loola nàngam te nga xam ne loolu du ak dëgg nga diina may na la nga wax ko ci saw làmmiñ tam bañ a àgg ci sa xol nga xam ne nit ki buñ ko naree rey ci ni ko weddi mën naa wax ña koy weddi loolu ni leen weddi na wax ko ci aw làmmiñam te agul ci ab xolam du ko wàññi dara waaye ba ci loolu sax Sëriñ Tuubaa ko moytu woon moom rus na di yëkkati kàddoom di wax lu dul noona ak doonte faatu bakkan moo ko cay fekk ndax euh, la muy xool diggante ma boromam mu ëpp ci moom ab dund mu gën a foor ci moom dund te dund nit ki lu mu jaayee ab dundam rek loola foor na ci moom moo tax mani dëgg ak jafandu ca ak dëgg ak baatub dëgg moo waral ñu exil ko yóbbu ko Gabon mboolem bu nu xataal bu ko tubaab yi dex def ak dëggoom moo ko sabab waaye nag da di dëgg du indi lu dul aw yiw ak donte indi na la luy niru aw ay aw yiw rek lay indi ndax wépp ay woo xam ne aljanna moo ci ginnaawam woo ay du aw ay waaye fenit du indi lu dul aw ay donte aw yiw la la indi ci li ñuy gis ci kaw wépp yiw woo xam ni safara mooy nekk ci ginnaaw yiw woowee du aw yiw kon nit kii dafa war a jàng dëggu ak donte da cay gar bakkanam ci la muy dëggu loolu mooy dëgg dëgg dina mu doon lu ñu war a jànge ci njàngale Sëriñ Tuuba war koo jànge ci ay melokaanam war koo jànge ci ak gamam yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon Ibnu Abbas ne ko waxlam annama asaabaka lam yakun li yoxte ak wa ma axtaaka nit ki bu amee bu ak ngëmam àggee ci moo xam ne lépp lu ko jot yàllaa ko dogaloon ca asal te mënu ko woon a ñàkk jot dana sax ci ak dëgg jéem a wér ci lim nekk nit ki bu xamee ni lu ko mooy yàllaa bindoon ni lii du ko dal waaye ay pexeem ak i layam mënta tax loola mooy ko bu fekkee tawxiid boobu nekk na ci moom bu gëmee ko noonu euh, dara du ko mën a joo ci muy dugg ci ay lexoor yoo xam ni ëllëg ki si biir yàlla mën ko ci fekk ma ni Sëriñ Tuubaa euh, loolu dañ ko war a jàng ci moom muy dëggu googu ci mujjug njaareem Sëriñ Basiiru mi ngi nuy nettali ni dafa am kenn ci mbokk yi koo xam ne dafa am jafejafe bu dox digganteem ak tubaab bi waaye mbokk yëpp takkatoo ne nañ jàppale suñu mbokk ba tubaab bi amuk jaaxle ngir xam ne dañ koo tooñ te mbokk yëpp takkatoo nañ jàppale kee ba mel ne ñoo nekk ci dëgg waaye tubaab bi ci jikko yi mu xamoon ci Serigne Touba ci ak déggu da ni jëmmi sëriñ Touba moom bu seeree ànd ak yéen ci ni seen mbokk mi moo nekk ci dégg bu boobaa danaa nangoo xam ni moo nekk ci dégg ma bàyyi li ma jàppoon waaye ba demee ci Serigne Touba bañ ko tubaab yi boo ci jàppul danañ ko bund xotaal ndax tuumaal nañ ko nangam ak nangam sëriñ bi dañu leen du ma seere lu ma xamut du ma seere lu ma xamut la leen wax bi mu ne du seere lu ma xamut ñu lijjanti ko ba mbokk ma tooñ waaye bañ demee ba ca gouverneur bu mag ba ca ndakaaru da leen ni mbokk mii dafa jege sëriñ tuubaa ci ak mbokk te sëriñ Touba gouvernement France jaar nañoo moom foo xam ne ruseti ruseti nañoo yëkkati si diitug jaam te kii jege na ko jege goo xam ne saa bu ñu demee ba def ko dara dana mel ni moom lañ ko def te ruusati nañoo def lépp dara lu koy naqari ndax fi ñu jaar rek moom fépp dem nañ ba am lu leer ci ne wax dëgg ñoo ko tooñ waaye moom euh, defut lu dul noona waxu ko léegi loolu kon ak dëgg moo yóbbu Serigne Touba ci noonu boppam sax danañ nangoo ñëw bàyyi ab àtte ci loxoom. mu mel ni loolu it ab dërs la bu ñu war a jànge euh, ci moom jëmmi sëriñ ba Bachir ci boppam di nettali moom itam ay taalibeem da ci am ñu jote ak ñu jote ak ñeneen ba yoon am ci aw yoon nee na biñ ko woo mu war a wuy ji dafa dem ci sëriñ Touba wax ko ko waaye sëriñ bi ne ko li ma lay dénk mooy boo demee fexeel ba lu dul dégg bu ko wax nee na ba ma demee jafandi ci baat boobu ma waxoon lañ ma laaj te xawma ko ma ne leen xawma ko loola indi na ak yombal lool ca jafe-jafe yooyu waroon am kon ci occasion weer koor bi danañ ci indi dara ci ay eh, njàngale ci yu mel noonu muy dëggu googu ak jikko yu rafet ak bañum rus ak bañ a gàccee nit ak neex a àndal yooyu yëpp nii dañ ciy occasion ngir jàngale ko ci ay jikkoom ngir nit ñi war ko mën a jariñoo ngay man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu ci kolos